déglu leen tey ma baakati mbaroo yàlla may na ko laa sindanooroo déglu leen ma baakati mbaroo yàlla mi fale fal na ko buuroo seexi faadilu moo aayatayoo yàlla may na ko laa sindanooroo rabbana ko dogal ca xaddiimi bil xaddiimi al bashiir in la mu def ku ko bañ yaa di mu haxiba mooy waxi sëñ Fallu jokku naa ca xalifatu manoo yeslu naa ca dollo bi ca biiru jokku naa jekk naa jekki naa dootu di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ca mbuuro waaxu nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi fadilu gaayi nan ñaani paasoo seexi fadilu gaal gaa ngi teeroo soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej fa mbuuroo sëñ Fallu sëmbu nan jàpp nanu sugaleef na ca duus ya fa mbuuru sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa ka suuru jaaru jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru na bàkk na sama mbaro làng na maa ngi way sama géeru wa barakaatu mbokk yi ñoo leen di nuyu bu te di siyaar di tuub nag ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu sëriñ bi xam naa ni dinañu xaw a dinañu xaw a jafe lool comme ndigal la mu ñu defe ko rek di am ak cant goo xam ni dañ koy cant dañ koy sant sëriñ bu baax a baax a baax ci itte itte jum ñu jox ñun ay ñi nga xam ne ay taalibe yu ndaw ndaw yu ndaw ndaw ndaw yu xeebo xeebo lañ waaye année bu jot mu ñëw fii sagal ñu ngir jëmi Cheikh Mamadou Fadal rek loolu nag ak sant la goo xam ni mënuñu koo mënuñu koo fay waaye nag dañuy jëm suñu suñu kam kàttan rek di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool barke Cheikh Mamadou Fadal ak mboolem njabootu Serigne Fallou yëpp ñi ñi ñi toog sa kanam nag ay ndaw lañ waaye Serigne Fallou lañ bëgg moom lañ moom lañ bëgg liggéey lit di ñaan nga ñaanal am kattan googu ba fañ bëgg liggéey bi yegg fa suñu borom yeggal yeggal ko fa ndax xam nañ ni boo ko ñaanee Serigne fal mu def ko kon ñoo ngi la koy ñaan Mbàkke nga ñaanal ñu ko Serigne fal dimbali ñu ba ñu yeggale ko da nga fekk lépp nag lépp doon sa kanam. nga bañ nga bañ a wuute dara barke Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi jégul baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah loon bal ma weyoo leen yaa di Kabiru Sëriñ Falilu sama ndaama la moo bari ndamoo ndaama dam bi bawal ak juuru Alaaji Falilu ndaama laa jaraway jaara kañ noo maa ko kañ bani Kajoor yi jóoroo ku ko bañ maa la bañ tëj sa bañoo ku ko mere te nga wéy si ji cooro ko bañ boo demee ci bàmmeeru da nga nakiir ak nakiiru ku ko bañ boo demee fa siraatu doo fa jàll ndi doo am sufiiru ku ko bañ naari jël xaali danoo mbal da nga fi sufiiru maa di xaadimu ahmadan na maay géwal fa këram moo di géeru bamba naa bàkk naa sama mbaroog faayilun laawa yoon man xaadimul mustafa maa ko wayoo maa ngi way sëriñ fàlliloog basiru sëriñ fàllilu xaadimul mustafa maa ko maa ngi way sëriñ Falliloog Cheikh Basiro fiilu naa faale naa faddulu naa faddalalallaahu yàlla di buuro lii nga awakaadu ko layoo man yasax u ko soob mooy xadiiro sëriñ Fallilu sibtu bàll ma fii rufa nga doomi baayu sëriñ Balla Jooro baayu mbeen siptu maam astawaalo bu doomi maam jaara du bàcci njuuru mbër na ca géej yëfa bambanaan na ca géej mbuuru nil ko sukka teg moo ko wax mandi nan kaasi buuro rembat nan fallax nan moo nu duyoo kaasi buur wuute naa kaasi beero bàyyi faatimatin maa ko fatu sama naar bi dal na te wóoro baayu Cheikh Murtada la gërëmoo baayu may mun a deesu ko jooro baayu muuminatin maa ko ku ko gëm dal di gënte nga buuro baayu aaminatin maa am ku ko am dootu xaaraani reero sëriñ Falilu baayu muslimatin maa ko musaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel à travers académie Minam euh, tey nag ñu am mbégte ñaw taxaw fii nga xamante ne moom moo di keppaaru Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké euh, doon amal li nga xamante ne moom moo nekkoon suñu huitième édition journée sociale Serigne Fallou e yaakaar naa tey bu ndee wax journée sociale wala ñuy wax lépp loo xamante ne dafay ndimbal di jaamu yàlla si jaamu yàlla yi dafay xel day dem si ki nga xamante ne nii moom moo di Serigne Fall tey nag suñu bu borom defal ñu tawfeex ba ñu nekk si huitième édition maanaam ba sept jàll na ren nekkeem huitième édition et saa su nekk buñ koy def ki nga xamante ne nii moom moo di Serigne Fallou tax ñu di ko def da siy def tawfeex boo xamante ne nii dafay kawe suñu njort waaye avant tout dañuy wax mention spéciale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk taalibe Serigne Fallou yi nga xamante ne boobu ba tey ñoom ñoo nekk jël seen. jël seen xam ki nga xamante ne nii tey lépp mën naa ne bu dëgëree gannaaw sëriñ Fall moom la muy Serigne Abdoul Fattah Fallilu di suñu bunt si Serigne Fall ndax yaakaar naa moom tamit moom moo nu gën a dëgëral ba ñu yëg si tey fii ñu yëg si waaye nag di njukkal di wax mention spéciale ki nga xamante ne nii xam naa nag li may wax du ko neex mais faaw ñoox ko mu di soxna Ndeye mbakke moom dañ koy bàyyi ak Serigne Fall dëgg yàlla. jàmbaar la jigéen la si biir jigéen ñi ndax mun naa ne sax jigéen ju man góor la ndax tey bu daayira bi dëgëree moom la ndax toujours moom mooy ki nga xamante ne moom moo nekk di ñu soññ di ñu jàppale à tout moment moom mi ngi wax ngir rek ñu téye li nga xamante ne nii moom mooy daayira bi waaye nag li nga xamante ne nii moom moo si gën a am solo mooy daayira bi ba nu koy sos mbooloo la woon bu bëree bëree bëri at bu nekk ñuy dem gis na ni ñi ñi nekk si daayira bi day gën wàññeeku waaye jëfi ñu bi day gën di yokk Serigne Fallou mi tax ñu koy def nangu na ko te moom moo ko téyel boppam ndax boo xoolee ngeen nekkoon plus de cent personnes mun naa nax dem ba nga xamante ne autour de vingt personnes ngeen nekk di ko organiser bu njëkkaa dañ daan dem di wuti ay moyen nit ñi di ñu jàppale ndax dañuy gis rek nit ñi ñu kii bëgg fàllu la ñu yóbbu fa suñu ay lettre de soutien ngir mu jàppale ñu mais daaw ñu gis kenn mais dépp ba nga xamante ne soxna si am na xalaat bu rafet boo xamante daf na kat ñun ñu nekk si daayira bi nañu ko jaayante chaque weer ñu xool ne temps la ñuy dugal temps yooyu ñuy dugal nag tey moo tax ba huitième édition bi ñu collecté lu toll lu plus loo xam ne plus de 3 millions de francs CFA la maanaam ñu am 9 tonnes ceeb yoo xam ne ñu ko fiy joxe ak ay savon lu plus de 40 pack ak li nga xamante moom mooy ay yére kon loolu sëñ Fallou waneeti na boppam ni liggéey sëñ Fallou soxlawul mbooloo bu bari mais lu mu soxla rek mooy ñu am gëm-gëm am pas-pas maanaam di dunde sëriñ bi sëriñ bi man leen dooleel ba huit loolu nekkul ay caaxaan naka nga waajale woon journée bi. waaw di wax alhamdulilah rek dagam yàlla def na ñu fekkewaat ko sant yàlla bu baax gërëm sëñ Fallou di ñaan yàlla doole suñu cofeel ci moom te ñaanal suñu jëwriñ bii di soxna Ndeye Fata yàlla guddal fanam te yokk wéram ndax ñun bu ñu waxee jàmbaar la sax dootul safe ndax waajuram bi sëñ Abdou Fata ba mu yegsee rek loolu la ko njëkk a wax femme battante la ko wax kon loolu rek Mbàkke day doy na sedd xool tey it doy na mbégte te ndegam moom mi sa waajur moo toog ba waxal la ko te ñun ñii nga jiite en tant que Mbàkke Mbàkke waroon na doxee neneen waroon a defee neneen nga def lii xool li sa maam ji bëggoon nga necca kon ñun xam nañ ne lii la sa waajur waxal dëgg la kon yàlla na ko yàlla lafal cat loolu rek lañ koy ñaanal. waaw yëg-yëg bi de sëñ bi nag mënta weesu ñuy def loo xam ne dañ koo xeeb ndax buñ sañoon lépp lu lu ñuy def rek lu rëy rëy rëy lay doon ñu ngi ci huitième édition def neuf tonnes waaye buñ sañoon chaque année danañ def lopp loolu ci ñuy yéene xool nag sëñ Fallou xam na ko day ñaan nag ci barkeem yàlla nañu ko mottalil ndax li ñu yéene sëñ Fallou moom du lii lépp nag billaay yàlla xam na ko